mbokk yi dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook l'observateur mi des ci candidature Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi xaar président Macky Sall daat koy ne xaar gi nag fi mu toll nii léegi mu jeex ndax président Macky Sall fi mu toll nii leer na ko ci boppam kan lay tànn ci élection présidentielle yi ñu jëm ngir mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar jamono ji ñuy wax ak yéen nag dafa nekk en voyage waaye président Macky Sall dellusiwaat na ci biir réew mii mooy fësal na candidat wu Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi dellusiwaat ci xëccoo xiiroo ŋaayoo nekkoon ci biir Benno Bokk Yaakaar pression bi nekkoon ci kaw président Macky Sall ak influence bi en tout moo di fi toll nii moom waxtaan ya jeex na gannaaw liggéeyu médiateurs yi fi toll nii nag presque mën nañu wax ne palais de la république moo nekk siège yu Benno Bokk Yaakaar ni ki démb tey ak suba tamit jaabante gi dana fa mel nettu leeg man lee enquête yéen ne élection présidentielle yi kay wàccaa gi fi toll nii am nañu ci am ay problème bokk na ci Benno Bokk yaakaar ñoo bari beneen problème bi am ci élection présidentielle yi di ñëw nag mu di kaawu Khalifa Sall Karim Wade ñoom tamit seen i mu ngi bëgg a suuf gannaaw recours bi nga xamante ni député Yewwi Askan bi def nañ ko nu moytul Khalifa Sall Karim Wade amee ah mën nañoo bañ a bokk ci élection yi di ñëw de en lu jëm ci wàllu parrainage bi nga xamante ni beneen affaire la tamit ci élection présidentielle yi di ñëw jënikaay bi xamal nañu ne am na Sonko bii de Pastef ñoom ñi ñëpp kenn ku ci nekk mën naa ñàkk am problème mu parrainage tax bu ñu demee ci assemblée nationale nag li mu député yi ñu soxla ñoom am li ñu war a wax kay mu di dossier ko jot na te fi mu toll nii nag may wax ak yéen combat bi ñoo ngi koy internationalisé jënekaay bi ne avocat Ousmane Sonko yi fi wax organisation des nations bi di wax ci dossier Ousmane Sonko naka noonu tamit Ousmane Sonko mi nga xamante ni nii yaramam dafa taggatémbe woon jamono ji na conscience am dellusiwaat na Les Échos yéenekaay ne ci teelu te jug de Ousmane Sonko mi wér-gu-yaramam fii lay jaaree yàqu abadan ndax gannaaw grève de la faim bi nga xamante ni moo ko yóbbu mu dem réanimation président Ousmane Sonko kuréel yi nekk ci ginnaawam yépp a ngi sàkku nag ñu daat koy libéré ci na mu gën a gaawee yeneen ki repp kay ñu jàpp ko dugal ko ci biir kaso bi fi mu nii moo di Ousmane Tounkara moom ak yeneen fukki ndaw fi mu nii ñu ngi leen di wër citer kenn rek na ci ñi nga xamante ni ñoo attaqué woon consulat ba su boobaa dinañ leen neexal ci lu tolloog 38 500 dollars maanaam 3500 euros Tunkara nag mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne man fekkeewu ma laaleewu ma waaye nag maa ngi toog di leen xaar Vox Populi ne màggal ak Tuuba ak ren ji dee Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ngay avertir njaboot gi nga xamante ni ñu ngi fa yéene màggal si ci ñu gën bàyyi xel nag seen comportement ndax Tuuba gii nag laaj orma kon nag kuy ñëw màggal ak Tuuba gii na nga bàyyiwaat xel bu baax a baax règle ñu fi teg wet ga yéenekaay bi deesuwaat ci état de santé président xam ne ne taga ba mujj jéggi dayoo yéenekaay bi ne moom Ousmane Sonko bu nu moytul nag dinañ jot ci ñoom information bu naqadi ndaxte seen état de santé mu ngi gën jéggi dayoo avocat Ousmane Sonko yi moom kafañu laa wax fi mu nii ci bakkanu Ousmane Sonko moo tax ci àjjuma ji fas nañoo saisir nag haut commissaire des Nations Unies waaye tamit duñu yem ci loolu de fas nañoo saisir tamit groupe de travail bu Nations Unies lépp rek jëm ci arrestation dëkk bi Ngagne Demba Touré yëkkati na loxoom nee na mu nga ca diwaanu Mali te fi mu toll nii nag réewug Sénégal sax nag dafa wóoratul toog gannaaw ba ko wax ñu jàppale tëj man nag fi mu nii génn naa Sénégal maa ci diwaanu Mali Le Quotidien yéenikaay moom deesuwaat ci musiba ba ba kumba gi nga xamante ni moo am ca diwaanu Fass Boy gannaaw gaal gi nga xamante ni moo doon dem Barsak Barsak phénomène Barsak Barsak gi nga xamante ni am na benn gaal gu fa waye juroom ñaar ci ñi nga xamante ni ñooy rescapé yi tonni nak yobbu nañ leen hôpital amna ci ñaari cas grave nak jamono ji yéenekaay bi ñu wa Cap Verde fim tonni senegal nii deglu. la déglu ngir ñu mëna rapatrier nak ndaw ñi nga xamante hamat ñom ñoo mucc ci gal gi ki sax koor yi nga xamanteni ñom ñoom gisagum nañ leen état bu Sénégal nak mo ci dess ngir mëna recevoir koor yi passe boy nak gannaaw manifestation yi ya fa amon niki barki demba dal abagum na ci biir dëkk ba di xaar nak koor yi libération yéenekaay mom di ñu kaawu mama kudul mi nga xamanteni ni mo doon wax ne dafa ëmb depuis ñenti wër déssé wu ko luddul ay waxtu ngir mu am am doom ñu jékki-jékki mu réer ci biir dëkk bi ñu koy wër di ko wër di ko wër moom Maman Coundoul jékki-jékki rek ñëw ne wasin na waaye nag dañoo sàcc doom ji ndekete loolu yépp ab film bu mu tegoon la moom Maman Coundoul gannaaw ba mu sëyee lu tolloog fukki atu yàlla amul doom Maman film la tegoon depuis juróom-ñeenti weer ngir gëmloo fameem jëkkëram ak seen waa kër ne moom dafa ëmb te li ni mel nag mu ngi xamal enquêteurs yi gannaaw bañ ko booleeg benn gynécologue buy dëggal ne Maman Coundoul ëmbul mësul wax sax dara du ci dëgg ay moom Maman weer yi ma wax ne dama ëmb yépp dara du ci dëgg ay sagar laa doon def ci sama biir bi dem ba gëmloo tamit sama jëkkër ak sama frère ne il faut ko ngeen nëbbal ma ko nag ëmb bii nag dara du ci dëgg waaye mama kundul gannaaw ba mu defee révélation yi jàpp nañ ko dugal ci biir kaso ba moom ak umbi ndaw mi nga xamante ni moo ko hébergé woon ci duwaanu Castor moom umbi ndaw di xaritam benn bakkanam yëgoon na bu yàgg ne mama kundul mi mësul ëmb am na beneen xale bu jigéen tamit boo xamante ni jàpp nañ ko dugal ci biir kaso bi mooy maam jaara seen mi nga xam ne moo organisé woon point de presse bi oo ay site internet pour gëmloo askan bi rekk ne mama kundul mii dafa bi tamit fi mu toll nii takk jàpp nañ ko yóbbu ca kaso ba ak beneen waay bi wuyoo ci turu Amadou Wele ndax moo doon joué rôle ravisseur teyoon nañ ko 20 000 francs mu woo jëkkër ji tamit di ko gëmloo yenn yi léegi nag moom Amadou Wele Maam Jaara Seen Ummi Ndaw ak Maman Kundul jamono ji ñoom ca biir kaso ba en attendant na ñuy xaar seen procès ay ak lu ci mënti xew daal ëmb amul kidnapping amul film bu ñu doon joué la depuis juróom-ñeenti weer ci biir kër ga <laughs> régal du réew fii yàlla baax na ñu yéen ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah